dal ak jàmm euh, ci la 2STV la première chaine de télé privée du Sénégal ak fi nga xamante ni moom moo di euh, la seule et euh, émission qui vous donne une bonne raison de vous réveiller de bonne tey dañuy daal di waxtaanee lu jëm ci wàllum affaire Ousmane Sonko Adji Sarr tey ji la kii di njiitalu Pastef fas yéene dem wuyu ji gannaaw ba mu annoncé woon ni du dem wuy ji lii di convocation bu gendarmerie tey nag fas yéene na dem ngir jànnoog juge bu juge d'instruction bi donc moom juge cabinet bi fas yéene naa janook moom tey ngir rek euh, répondre bien sûr ci yenn ci enquête yi ñu fas yéene ma mené waaye daal démb euh, li gën a fës euh, moo di conférence de presse bi nga xam ni Ousmane Sonko def na ko di wax rek lan moo tax mu daal di def volte fas maanaam lan moo tax mu daal di ñëwaat ci décision boobu nga xamante ni jëloon na ko leeral na ko bu baax à travers une déclaration de presse bi mu def ca biir këram di wax rek ne am na ci ñu bëri ñoo xam ni ñëw nañ def médiation association ci mel ni société civile bi ay kilifa diine ay kilifa aada ak ñëpp ñoo xamante ne en tout euh, wax nañu rek euh, que ni mu dem moom moo leen gënal rawatina nag avocat yam yi nga xam ne un peu plus tôt ñoom it daal di nañu tenir benn conférence de presse ngir daal di wax rek ni euh, seen client euh, des na ci moom ngir mu daal di euh, wax ban décision la jël waxtu yu tuuti lañ ci toftal ñu daal di rek gis ne moom génn na daal di wax ne incha allah dina dem comme tey jii. Euh, ci 9h lañ ko convoqué ci kanam tuuti sax dinañ fa fekk Ibrahima Diallo mi nga xam ne moo ñu fa nekkal lu ñu xool laka la mbir yi demee foofu lee ca cité kër góor gi ci këru Ousmane Sonko dinañ ci dalal aussi fii ci plateau bi. kenn ci euh, Pastef di Aldiouma Sow nekk juriste en même temps nekk membre bu Pastef ñu fas yéenee waxtaanee lu jëm ci loolu ndax euh, démb itam ay information yu bëri jot nañ ko ci toujours ci mbir moom moomulee waaye dinañ ko gën a yaatal ci kanam tuuti euh, leneen li nga xam ne aussi mu gën a fës ci wàllum xibaar yi moo di li nga xam ni moo di société civile démb kii di Aliou Tine moom daal di nay rek seeti kii di njiitalu Pastef bi daal di itam tweeté wax ni daal dina koy Euh, ñaax rek ngir mu daal di euh, dem wuy ji bokk na ci ñu ko convaincre ba mu dem euh, wuy ji waaye itam sëriñam bi nga xamante ne moom itam ku ko jege la lool moom it dafa daal di ñaax ki nga xam ni moom moo di euh, Ousmane Sonko mu dem rek déféré à cette convocation loolu itam euh, bokk na ci li ci gën a fës njiitul Pastef bi démb euh, dellu rek joxañ baaraamu tuuma juste su Sénégal di wax ni wóolu ko te doon doonte wóolu ko sax dina dem wuyu ji waaye itam lu mu ci gën a bañ mooy li nga xam ni moom moo daloon ñenn ci ay ñi nga xam ni justice da leen woowoon ñu bañ a ji ñu daal di leen di envoyé mandat d'amener mënee ngir yóbbu leen te yooyu lépp ay incidents mën na ci xew teewul moom mi di Ousmane Sonko wax na ñi di ndawam ñi ñu daal di rester mobilisé ngir rek euh, li nga xam ni moom moo di bundu xataal ñu mu bañ cee am waaye itam ngir gunge ko ca foofee nga xamante ni fa la jëm. gannaaw euh, lu ni mel euh, loolu di information yi leen doon euh, dégtal dañuy daal di ñëw ci point Covid bi comme ni ñu koy defee bés bu jot démb Sénégal daal di lu toll ci téeméeri cas yoo xam ni mi ngi jugee ci junni test ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci yi ñuy réaliser fukk ak ñaar ñeent fukk ak ñaar yi nekk ay cas contact suivi amul benn cas importé cas communautaire yi maanaam ñi nga xam ni dañ leen ko wàll te xamuñu fan lañu ko jëlee ñu ngi toll ci juróom fukk ak euh, juróom-ñett euh, ci ay euh, doomu aadama te loolee lépp fi ñu ko enregistré li ci ëpp moo di dakaar diggante Dakar Plateau Médina Guédiawaye jàpp Mariste ba Gueule Tapée Ouest Foire ba ci banlieue bi Pikine Kër Massar. Tivaouane Peulh li ci des ñu ngi ko enregistré hors de Dakar ñu enregistré itam ay nombre de patients guéris lu toll ci 241 patients ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ay doomu aadama yoo xamante ni daal dinañu wér démb ñu daal di koy euh, xamle ci communiqué bi ñeent fukk ak ñoo nekk ci réanimation jamono ji juróom-ñett ñett te doomu aadama ñoom ñoo ñàkk seen bakken démb ñu koy xamle ci communiqué bi di wax rek ne 34 832 cas le Sénégal enregistré 2 mars ak euh, léegi mu ji un an euh, un jour donc euh, trent mille cent 35 299 personnes ñoom la ñu jot vacciné li nga xam ni moom moo di bitim réew ñi ngi am ci lu toll ci àdduna bi yëpp xayma baa ngi toll ci million millions cent ci ay doomu aadama yu xam ni am nañ virus bi diir bu mu fi duggee ak léegi 2 millions 500 ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan 91 millions 300 ñoom ñoo ci wér 1 milliard 600 euh, ñoom ñooy nombre de tests yi nga xam ne def nañ ko million millions 800 ñoom ñoo nekk ci lalu hôpitaux yi ñu leen di faj loolu moo nekkoon li gënoon fës ci wàllum point du jour lié bien sûr à l'évolution du coronavirus au Sénégal. ñu daal di xool yi euh, revue des titres euh, lan la journaux yi xëyee tey ak ñun ci wàllum titre gis nañ ne ci gën a fës daanaka li ci euh, yéenekaay yi moo di mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr gannaaw bi njiitalu Pastef fas yéene dem wuy ji juge bi le quotidien daal di ne sur les conseils du marabout et de ses avocats donc ak société civile bi kii di Ousmane Sonko fas yéene nañ rek euh, daal di euh, wuy ji juge d'instruction j'irai répondre même si je ne crois pas à la justice gëmul justice gëmul yoon waaye moom jàpp na ni dina dem répondre gannaaw ba ko ay avocat ak euh, jege ñaaleem mu daal di ñaan rek mu dem wuy ji Sud Quotidien moom ñëw ci mbirum Sweet Beauté ba tey di wax rek ni Ousmane Sonko tey ji la nara fas yéene janook juge bi loolee la Sud Quotidien daal di xamle gannaaw Sud Quotidien le temps mooy ñëw ci mbirum euh, Ousmane ko moom itam di wax lan moo tax mu daal di euh, dellu ci ay kàddoom daldi di rek euh, la mu bañoon mu daal di koy nangu loolee lépp le mooy daal di koy indi <coughs> excusez-moi ci xëtam bu njëkk indi ci ay ponk yu am solo. gannaaw le témoin ñu xool tribune di ñëw moom it ba tey ci convocation bi nga xamante ni euh, kii di Ousmane Sonko war na ko dem wuyu ji euh, fële ca tribunal mu mel ni daal jamono ji euh, dañuy daal di taxaw seetlu ci risque yi nga xamante ni moom la ñu la waaye itam lañuy ñuy xaar ci moom mu mel ni mën nañu sax xaar Ousmane Sonko toog bañ a wax ci kanamu juge bi loolee lépp nag daal di nañ koy indil ay waxtaan bu taxaw seetlu bu yaatu mi ngi ci biir yéenikaay bi source daal di ñëw ci li nga xamante ni ba tey moo jëm ci wàllum euh, Ousmane Sonko ak Adji Sarr li nga xam ni moom moo di euh, juge bi nga xamante ni war na janook moom tey waaye itam ñëw euh, ci wàllum Covid 19 anam bi nga xamante ni moom lañ ko yoree fii ci biir réew mi mu mel ni daal am na ci ay ponk yu bari yoo xam ne am nañ ci satisfaction. le soleil ñëw ci Covid 19 boobule sax ak chiffres yi lu mu joxe mu mel ni daal jamono ji mën nañ jàpp ne euh, début bi mu di 2 euh, mars ci at bee ñu jógee ak léegi mbir yi ñu ngi koy maîtriser ndànk-ndànk loolee le soleil quotidien xamle. gannaaw le soleil libération ñëw ci euh, tribunal de Dakar bi fas ak accueillir kii di Ousmane Sonko tey ji ci àllarba bi dañu fas yéene rek euh, janook mu fas yéene janook juge bi di wax itam ni Ndeye Ndiaye di propriétaire bi moom it façon na euh, janook juge bu huitième cabinet ak kooku di transporteur bi mu mel ni daal mercredi bi la boo xamante ni ku muywul dina am ay tension bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di libération l'évidence daal di ñëw Euh, ci euh, lii nga xamante ne moo di convocation wu Ousmane Sonko mu mel ni dugg na ci lu mu xamul bu ñu sukkandikoo ci titre l'évidence yéenikaay euh, mi fësal lu ni mel ci xëtam bu njëkk enquête quotidien eh, ñëw ne eh, Sonko dafa fas yéene janook ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay démon eh, donc ay démon loole la xam xamle gannaaw audition bu ñu fas yéene amal tey ci àllarba bi Ousmane Sonko daal di fas yéene dem jàkkaarlook juge bi. les échos ni ouf euh, donc euh, Ousmane Sonko finalement daal di nay fas yéene dem répondre convocation wu juge bi les échos moom daal di ñëw euh, ni ba tey ci wàllum aussi lu jëm ci industrie touristique bi ak li nga xamante ni moom moo ko dal ci Covid 19 bi mel na ni daal suux na bu baax a baax te bu ñu mayul sax dafa fas yéene nax saay ci réew mi direct news ñëw ci kàddu xalifa Sall mi wax moom it na na sénégalais yi. daal di résister bien sûr euh, face à cette affaire euh, Ousmane Sonko Adji Sarr moom daal dinay def benn sortie démb moom moom di Khalifa Sall di wax ne euh, nit ñi nañu génn résister loolee la xamle loolu moo nekkoon luy daal di tëj lu jëm ci wàllum revue des titres ci euh, tey ji euh, mercredi 3 mars 2021 di leen fàttali ne tey dañ fas yéene dalal Aljuma Sow nekk ci parti Pastef ñu fas yéene waxtaanee loolee nga xam ne moo jëm ci convocation tey bu seen njiit wi di Ousmane Sonko ci kanam tuuti itam dinañ dem xool foofe foofee euh, naka la situation bi tëddee foofu andi ceeg euh, kañu fa toogal ci Ibrahima Diallo dinañ ko jot ci kanam tuuti xool mbir mi naka la fa tëddee laata moom muy dem di wuyu ji à 9h euh, ci kanam tuuti lay doon ñu daal di leen di dégtal la rétrospective du jour ñu daal di koy xool dellusiwaat léegi. ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Je m'excuse pour ce moment de faiblesse. Ce matin, c'est bon. Merci beaucoup. Ce matin, je suis désolé. Merci, c'est bon, c'est bon. Je suis C'est un moment de faiblesse. Je l'accepte. Ça ne m'arrive pas souvent. Il se trouve que ce matin, c'est ma maman malade. soo gisee sama xol tooy c'est que ce matin bi may jóg sama yaay dafa déglu rajo mu woo ma mu ne ma mbay mbaa lii ñuy wax defoo commencé jooy elle donc loolu moo tooyal sama xol mais du leneen alors je veux que les gens comprennent que la politique c'est beaucoup de fair play dama bëgg nit ñi xam ni politique du lu la neex wax du lu la neex def parce que nag lu ci nekk nag day am retour de bâton gis nga ëllëg du añ du reer mais lu jar sóobu voilà c'était la rétrospective du jour il y a trois ans c'était en Khalifa Sall moom aussi opposant ñu ko doon euh, convoqué moo waroon dem wuyu ji c'était euh, c'était juste euh, benn conférence de presse voilà juste avant ça euh, ça euh, muy répondre à cette convocation donc loolu moo nekkoon aussi li nga xamante ni c'était en mars également euh, voilà je pense que c'était même suma jumu 3 mars lañ ko waroon convoqué le 5 et cetera en tout cas c'était en mars 2017 ça fait déjà euh, trois ans dañuy daal di euh, accueillir ci plateau bi dalal fii Adjuma Sow nekk chargé des élections euh, bu parti PASTEF juriste également ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. waaw Astou maa ngi lay fay maa ngi nuyu bépp sénégalais boo xam ne moo ngi ñuy seetaan mooy profité rek avant ñuy xuus ci waxtaan bi di massaw suñu ñoñ ñi nga xam ne daanaka mot na weer.